rom saar fukk ndax yàlla bërgël na xeetam mukk ndaxte man itam ci israyil laa bokk wàcce ci ibraayima te bokk ci giiru benyamin yàlla bërgëlul xeetam wi mu xamoon lu jiitu ndax dangeen a xamul li mbind mi di wax ci mbirum iliyas dafa doon tawat israyil ci yàlla naan borom bi rey nañu say yonent daaneel say barab yu sell ba man kenn maa ci des te ñu ngi may wuta rey waaye lii la ko yàlla tontu dencal naa sama bopp juróom ñaari junniy nit ñi jaamuwul baal noonu itam ci jamono ji nu nekk des na nit ñu néew ñu yàlla dencal boppam ci yiwoom ginnaaw nag yiwu yàlla rekk a tax mu denc leen kon du seen peyug ñaq walla boog yiwu yàlla dootul yiw kon lu nu ci war a wax li bànni israyil doon wut gisuñu ko waaye ñi yàlla tànn rekk a ko gis te ña ca des bañ a gëm ba seen xol darkiis looloo tax mbind mi ne yàlla daf leen a jox xelum nit ku gëmeentu bët yu gëlëm ak nopp yu tëx ba ci bésub tey te daawuda it daf ci wax naan na seeni ñam sax nekk fiir ak i pakk nañu ci daanu te yàlla mbugal leen nañu gumba ba ni nañu tiis ca sëgg ba faaw ndax kon dañoo tarxiis daanu ba faw mukk waaye jëllub israyel dafa ubbi bunt ngir xeeti ñi dul yawut mën a mucc te bànni israyel siis leen gannaaw seen tooñ nag moo ubbi buntu yiw ci waa àddina si te seen ñàkk moo meññ barkeb xeet yépp cey bés bu israyil gépp delloo ci yàlla ndaw barke bu bari yéen ñi dul yawut yéen laay waxal ndegam yàlla daf ma def ndawam yónni ma ci xeeti àddina si damay matal samab yonent dama koy def ngir ñi bokk ak man xeet siis ba ñenn ñi mucc ndaxte bi yàlla génnee Israël ubbee na noonu bunt ngir xeeti àddina juboo ak moom kon su yàlla dugalatee Israël ndax du mel ni ndekkiteel néew ya damay wax ne mburu mépp sell na bu ci yàlla amee wàll naka noonu garab gi yàlla séddoo reen bi garab gépp sell na bànni Israël a ngi mel ni garabu olive gu ñu jëmbat ci kër gi waaye mu am car yu ci fàq yow mi dul yawut yaa ngi mel ni caru garabu oliw gu àll bu ñu jabatal ci garabu kër googu noonu nga jariñoo meen mi jóge ci reen bi kon nag bul bàkku di xeb car yooyu yàlla fàq waaye soo bëggee bàkku xamal ni reen moo lay yenu te du yow mi car yaa ko yenu xanaa dinga wax ne car yooyu dañu leen a fàq ngir jabbatal ma fa ñu nekkoon dëgg la waaye seen ngëmadee tax ñu fàq leen wuutal la fa ndax sa ngëm bu mu tax nag ngay bàkku waaye nanga moytu gannaaw yàlla baalul car ya cosaanoo ca garab ga kon boog yéen itam man na leen a fàq loolu kon wone na ni yàlla baaxe ak ni muy meree tooñ ci ñi daanu yàlla wone na ni meram tànge wone mbaaxam ci yéen su fekkee yéen a ngi ci wey lu ko moy des na leen fàq yéen itam te car yooyu fàq suñu weyul ci seen ngëmadi des na leen delloo ci garab gi ndax yàlla mën na leen cee tafaat yow mi dul yawut yaa ngi bokkoon ci garabu oliw gu àll waaye yàlla daf la cee jële ci lu dul farala am jàbbutal la ci garabu kër gi kon mën na noo gën a wóor ne yawut yi judduwaale nekk ci garabu oliw gu kër gi yàlla dina leen ci delloo mbokk yi dama leen a bëgg a dindi kumpa ci lii ngir ngeen bañ a yëg seen bopp dërki su xol dab na bànni israel ab diir ba bés ba mbooleem waa àddina ñu war a bokk ci nguuru yàlla dugg ca bu loolu amee nag bànni israyil gépp dina mucc moom la mbind mi tëral bi mu naan ab xeetalikat dina jóge ci siyon dàq wedd ci askanu ba loolu mooy kóllëre gi may fas ak ñoom bés bu may dindi seeni bàkkaar gannaaw bañ nañu xabaar bu baax bi ay bañaale yàlla lañu ngir ngeen jot barkeem waaye gannaaw yàlla tànn na leen dafa leen bëgg ba tey ndax seen maam ya ndax li yàlla maye dootu ko nangu mukk te ku mu woo ci boppam dootu la dàq mukk ñu déggadil yàlla ngeen woon waaye nga ngëmadég yawut yi tax na ngeen jot yërmandeem ñoom itam lànk nañu léegi ngir mën a bokk ak yéen yërmande yàlla kon yàlla tëj na ñépp ci ngëma ngëmadi ngir mën a yërëm ñépp xelum yàlla ni mu xoote ak xam-xamam ni mu bare baraw xelum nit kan moo muus ba xam dogalam wala nga am xel ba nànd ay jëfam mbind mi dafa ne ana ku xam xalaatu borom bi ku ko doon digal te ku ko mas a jox dara ba mu war laa delloo ndaxte ci moom la lépp sosoo ci moom la lépp di jaar ci moom la lépp di dellu moo yelloo ndam ba faw amiin